soq ak Gamou Gueye so Gamou Gueye wóolu ma ko ak soq. naa ko ak keneen ku dul sox waaw. Gambo man moo ëpp doole. te bu jour ba nga koy xam. waaw. combat ba day gaaw. non nañ bàyyi bu jour ba rek. yow sa combat taxaw. waaw maa Serigne Ndiaye 2. boobu tam daa mel dina wex de. sàpp lay def waaw. gars yi nañ mbërum papat la de. non yooyu yëpp garaawul. loolu retour de Sokala. loolu sama làmb maa ngi ko jëlee waaw. dama jour ba ma ñëwee rek ñëpp dinañ xam ne teew naa. a teewaay. sama waa waa fii ñëpp waaw man la di xaar ma dem ci borom Marseille bi maa ngi lay bëggee. waaw maa lay fay. yow la bokk ak gàmmu sama rakk muy bëre dimanche ak waa Pikine. waaw ñu ñu ngi préparé nañ pare nañ partout ñu ñaan yàlla rek mu may ñu ndam lu sedd guy. soq na li mu moom lay jël si te day daan. waaw ñun pare nañ ñun dóor mu daanu rek waaw. Adja bëgg na. ça va bien. kii na da ngeen di dóor soq mu daanu lool est-ce que mën naa ne. waaw rek. ndam rek ah Sokh kenn waxul ay waxam gaamu moom nam rek seet na guy rek. dañuy jël suñu victoire daan nañ Sokh ba pare dañuy jël suñu victoire. waaw dañ koy saxaram rek. Sokh du saafara. waaw c'est le meilleur le meilleur des lutteurs. eh ouais. dama koy sant yàlla yàlla may ko ndam lu guy jaar ko fam ka a ah, gis ma dañuy yëngu si yii jëla dàll yi xam nga dañuy yëngu si lii ñu tase mu ma taan nogay damay def open press dama bëgg nga defal ma li nga daan def si gaay ma solu ba ñëw nag dama bëgg bu ko xam ne defoon na ma ko ma def naa dama bëgg nag bu ko gisee xam ne solu naa léegi nag ma ñëw ñu ne jigéen ñi dañuy bañ jigéen ñi dugg si biir looloo tax ma taxaw fi ma taxaw fi waaw mais ko soq daa mel ni nan ngeen ko di problème samedi dimanche de seen digganteeg soq na yomb suñu diggante dañu koy door mu daanu dañ koy wal ba mu mel ni cere wal ko ba mu mel ni sànqal bës ko ba mu mel ni digga dege digga dege dañ koy wal ba mu sànqalu wal ko bës ko ba mu mel ni digga dege soq am na problème ba dimanche ak jàmm waaw incha allah. Soxna moo dugg si lébu yi am na problème am na ko dooleeti ah noonu rek no stress. bëgg naa la. waaw salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp mais Sokh moom li ñu koy wax bariwul quoi Sokh li ñu koy wax moom atoo juumaale non bu juumaale dinaa waale waale te bu juumaale waale dina am lu miti ñun xool ñu Sokh de si kaw lañ jëm si kaw parce que sëñ Bamba ñun gàmmu gëm amul ragal. lébu du ragal noonu la demee. yaa dem bare Ndoy Fall soowa ngoong kooku tuuroo na soomi waaw ee eh, way waay siri rabalam la takk ndeysaan xoolal waay Rufisque waay tëngee jëngi ee eh, waay waaw Baba Diaw nar naa neex cey la 15 rata wóor de

Thiam production ak soq dugg na fii am lu mu fi defoon waaye bi mu fiy mujj am na lu mu fi jëlee duggaat mu fi waaw maa ngi lay delloo ziar Babacar ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yoonte bi sant samay ñaari waajur di sant waa Tëngéej gépp waaw di sant euh, ñi nga xamante ne nii ñëpp dañ bàyyi seen yitte ñëw fii pour Gamou gay di ko jàppale. ñoom ñëpp maa leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax waaw. gàmmu gee yaa ngi sant yaa ngi gërëm mais nag dañuy nuyu sa mbokk yëpp waa Tëngéej yëpp ñu ngi leen di nuyu ku fi teew rek ñu ngi lay nuyu ku mu mën a doon tey nga am bés bu toll ni yaag soq ma ñëw seet si la saal nga wax gars yi ne gàmmu mii daa mel ni wuluwul boppam gàmmu daa wuluwul boppam wala gàmmu soq la xaw a ragal wala gàmmu fu mu toll actuellement ci dund waaw. na laa lay wax sax aw ma loo xamante ne nii dama koy ragal si soox xam nga bu fekkoon dama koy ragal duma ma ko jël yaa comprendre mais man ku ma xam xam na man nii laa mel man nii laay waxee treize combats laa bëre bi ma dalee bëre ba léegi nii laay waxee sama nii laa mel. parce que na boo ko lancee du baax ci moo tax mënoo wal lañ ci dugubam ça veut que moom li mu lay indil dibaas amul loo ci mën a résister wala nga koy attan. man boola man li ma koy andil moom du ma mën a résister ah. waaw. du ko résister waaw. si lépp incha allahu rabbi. waaw maa ngi lay nuyu bu baax Babacar di nuyu képp ko fi teew. waaye gàmm gay. nee na. dafa bëri ay champion bëri nga xamante ne moom dañ ko indil mobile mu daan ko. nee na mu indi ñu indil ko Nandi Fall mu daan ko. nee na ñu indil ko Pambaay xale bi dàq bëri ci génération am mu daan ko nee na kon ki daan ñooñu ñëpp Gamou Gueye du ko jaaxal. waaw loolu dama si soor a tontu Babacar waaw moom ñi mu daan ay champion lañ waaw moom champion la man tamit ñan laa daan. ñoo daan man ñan laa daan. ñoo daan yow. non yéen xam ngeen ko yéen yéen wax leen ñi ma daan. Ah, kii de yaa ko mujj daan kulifay da nga mujj daan. ah kan. naa daan nga yàlla may ndam si kawam combat bu yomb ci Sokh combat bi du combat bu yokku bu yomb ci Gamou Gueye ndax komba bi dafa nekk combat boo xamante ni combat amateur la komba jànk la combat bu amateur bi di xaar est-ce que combat bi dina am xeex dina am bëri ñii dañ ne Sokh forum yëpp jàpp la ñi ne Gamou Gueye forum yëpp day xeex day jàpp est-ce que combat bi dina xeex dina am bëri. bi mën naa am lépp combat bi mën naa am lépp mën naa am lépp man daal damay ñaan yàlla ma yàlla may ndam si kawam li mu laaj moom incha allahu rabbi bu dimanche la 15 bu soobee yàlla incha allahu rabbi li mu laaj dinañ ko def waaw bu soobee yàlla di ñaan yàlla yàlla may ndam waaw. Euh, sa bin bi waxtaanee moom ko waxu ne ko Gamou Gueye am daf ne ma terewuma lekk terewuma naan bi ngi dem jàngi école ci man la ma daan def laay def loolu lan lay def ci yow. waaw kon man rek kon man rek moom bu waxee gàmmu terew kaa lekk terew kaa naan. waaw lool moom la concerné loolu moom la moom moo yëg loolu daal waaw. waaw mais Babacar mais Babacar soq nee na coronavirus bi gars di daw sax moom daw ko nee na day wane ni rek moom ragalul pare na moom pare na jéem dégg wax de. nee na dawul coronavirus bi gars yi daw feebar bu bi ngay dégg yàlla bu mu dal kenn moom nee na maanaam daw ko sax waxatuma laa daw gàmmu gi non loolu dañuy ñaan yàlla ya bu mu dugg Sénégal waaw dañuy ñaan yàlla loolu yàlla bu mu dugg Sénégal di ñaan loolu feebar boobu yàlla na jeex si monde bi yëpp waaw loolu baaxul dañuy ñaan wér rek la ñuy ñaan waa gàmmu ñëpp ne bu ngeen jàppantee sa sens bariwul foofu waaw loolu ñi ma ñooy wax loolu ñi nga xamante ne xamuñu ma ñoom ñooy wax loolu mais man ñi ma xam est-ce que loolu gën a lu ñu waaw. mais Babacar waaw mais comme combat bi dañu gis ni promoteur bi da ne du ko joxe live en direct maanaam du ko teg direct te Tëngéej ku ko xam-xam ni dëkk la boo xamante ni dañoo xam mobilisation est-ce que prêt nga pour mobiliser waa Tëngéej gépp ngir ànd ak ñoom arène national ngir ñu gunge la ci combat boobu nga xamante ni combat jant la. waaw mais lii nii rek moo lay confirmer am nga nga xewle sa mbokki mbër yëpp ñëw ñëpp bàyyi seen yitte ñëw di la jàppale lii rek mooy confirmer loolu xoolal ñii ne sa ginnaaw nii ñii ñëpp ay champion lañ di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla nañ am ay combat wóor na yàlla ñoom ñëpp ay champion lañ mbëri tënk ji ma xam yëpp génn mbër yëpp yëpp génn gàmm ban comportement la amee ci biir dëkk bi ba tax tey magam yëpp ñëw taxaw soo ko simag papa yaat moom daan na fi sax ay rab moom moom xaw ma sax lu ko dal moom tey waaw

waaw mais déggoo li ma la wax xanaa yow nee naa la man nii laa mel treize combats laa bëre bi ma dalee bëre ba léegi nii laa mel leneen lu ma si teg damay utilisé gàmm gay sooxa nee na bu ma jàppee dina ma duma dina ma daan waaw ba dimanche incha allahu rabbi waaw. bu dimanche li may def incha allahu rabbi di ngeen ko xam. ma laaj la leen na tey gis naa waa Kënge yëpp génn mais ci benn côté Pikine ku na xam na ne Sokh ne mooy relève ba tey. muy Eumeu Sène Boy Niang Ama Baldé ñoo koy takk andi ko bés ba. est-ce que yow la maanaam ñooñu bu ñu nekkee si ginnaaw Sokh mu jëm si ci kaw gàmmu gi est-ce que gàmmu dina attan loolu. est-ce que dina attan loolu. waaw boo man bu ma geesoo gis Sococim. gis doomu Dangu gis Papa Yade numéro gis Ablaye Diop c'est noir gis ama gis doomu dàngu xam gis 10 problème gis maama gis gis gis gis limousine gis Papa gis gis ñëpp kon man tamit na laay def waaw man na laay def waaw waaw fair play que nun waa Tëngéej incha allahu rabbi duñ andi waaw di ñaan yàlla. ma yàlla may ndam si kawam. Thiam production waa Thiam production loo leen di wax. waaye Baba ñaanal jàmm. di nga ñaanal loolu laa fas yéene andi li ma daan ma daan andi laay andi li ma daan andi ba yàlla di ma may ndam moom laay andi bu soobee yàlla di ñaan yàlla may ma si ndam waaw. gàmmu tàggool ñu dem. waaw man maa ngi sant waa Tëngéej gépp di sant ñi nga xamante ne nii seen yitte ñëw di ma jàppale xam nga di sant samay entraîneur ku su ma nii Papa Yada performant xam nga laay boxeur Idi ak Babou Kalle xam nga ak kii Papa Lamine maa ngay sant bu baax di sant suñuy mbër yëpp di sant mbëri tëngéej yëpp bàyyiwuma kenn waaw di sant mbëri tëngéej yëpp bàyyiwuma kenn xam nga di sant ñi may jàppale ñëpp di wax waa autorités yi nekk tëngéej ñu ñëw jàppale ma waaw ñu ñëw jàppale ñu bu baax autorités yi nekk tëngéej bàyyiwuma kenn ñëpp nañ ñëw jàppale ñu waaw incha allahu rabbi ba dimanche bu sooba yàlla jaajëf bu lamb ji sàjjee ba mbëri tus bay fan si yeeg amateur yi seen xol yaag seen xel yaa ngay bëre waaye bu arbitre bi sifflé mbir mi wàllu kenn lay doon ku ñëw ca bind ba ngay des eh, eh, eh, nan ngeen bu